ngir jëmmi yàlla dafa bëgg daaray kokki lool moom am ci yitte loolu alaajee ko décoré loolu ngir jëmmi yàlla kon Modou Wade mu yëgsi ci kaddu maire bi jërëjëf kon maire bi laayeen yi maa ngi leen di tiijaan yi maa ngi leen di woo ibaad ñeseen di woo yi ngir yëg ko xam xikam laayeen yi maa ngi leen di woo tijaan yi maa ngi leen di woo ibaad yeeg ñeseen di woo murid yi ñépp ngir xikam baarakallaahu fik jërëjëf bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbooloo mi yépp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi ñuy yëkkati mënatul yàgg waaye mu ngi jóge ci le premier magistrat bu Thiaroye sur muy le maire maître El du Ndiaye mu yónni fi une forte délégation jiite na ko kii nga xam ne mooy premier adjoint au maire di monsieur Jamil Sarr waaye mu ànd ci tamit ak le chef de cabinet du maire muy monsieur Ousmane jaw ànd ci itam ak le conseiller municipal chargé affaire sociale muy Adjaratou Oulimata Touré ma teew fi jël seen kàddu di sant yàlla bu baax monsieur le maire nee na lu mel nii ku xëy indil la ko ci sa dëkk boo xam ne la nga jublu ca dëkk ba mooy defar ko te bala ngaa defar ab dëkk da defar jikko yi ña dëkke ba pare mu ne kon alxaaji saar su sampee daara ju toll nii ci biir commune bu thiaroye sur di defar ndaw ñi tàggat seen jikko yi yar leen yarub lislaam ba ku bëgg a defar réew mi ñoom ñu mën caa def seen participation pour loola sotti amel na ko njukkal waaye amel na ko ñaanal ko yàlla alaaji Sarr daaray Koki 2 monsieur le maire dafa wax ne suñu ñëwee nañu la sant sa kanam kanami bokk ci sa kanami sëriñ ci sa kanam kanami ñi nga xamante ni ñoom nga séqal mbir mi muy daara yi lislaam di jàngale alxuraanul karim ci commune bu thiaroye sur mu wax ne moom day soo amoon fukk yu mel ne alaaji saar ci biir commune bi la mu yéene te digge ko ak Thiaroye-sur-Mer yàlla mën naa def mu mottalik wax naa ko ci sama njëlbéenu wax kenn mënul tabax ëpp dëkk te defaroo jikko yi ña koy dëkke te defar ko mu ngi tàmbalee ci lii ndax ku teew fii tey gis ñii ci kaw présidium jombi waaye également nga gis ndaw ñii jigéen ñii ci gauche gis góor ñii ci droit ak yar bi ñu toogee dina la leer ne boo leen bëggee jiite ëllëg mën ngaa jiite benn communauté bu am yar ak teggin te loolu mooy tax la nga bëgg mën a sotti mu ne moo ngi ñaan yàlla dégg nañ fi ay demande yoo xamante mu ngi jóge ci ay doomu aadama pour jàppale leen waaye moom day kii nga xam ne moo ko fi teewal muy premier adjoint au maire Jamil Sarr nee na moom dina jël engagement ak le chef de cabinet ak la municipalité ba Thiaroye sur Mer ak le maire maître El Mamadou Ndiaye taxawu daara ji ba amélioration am ci ndaxte lii muy def nee na moom la ko defal ginnaaw yàlla maa ngi guddal te waxtu tàkk tisbaar baa ngi dugg si waaye ñu ñaan yàlla ni ñu ko teewee ren ñu teewewaat ko déwén te kenn bañ a mànk alxuraan ji nga xam ne moom lañu fi dottit yàlla na saawaan baawaan ci commune bu Thiaroye sur Mer barkeb alxuraan yàlla wàcc ci bi waaye wàcc ci raison bi waaye wàcc nag ci suñu njiit sunu kilifa nga xam mooy le première magistrat le maire maître El Mamadou njaay borom xol bu yaatu boobu nga xam ne léppam jàppale caaroy la ak jàppale daaray alxuraan yi ak ànd ak ñoom moo tax monsieur le maire bii ko fi utu nee na xàmmee na bu baax yow Alaaji Sarr sa àndandoo ak le maire maître El Mamadou njaay mu ne nag àndandoo boobu dinañ ko continuer gën koo dëgëral gën koo yaatal ba mu gën a yaatu ndax lii nu fekke fii tey ah c'est une première nag ci biir thiaroye sur fii leen nu juddoo fii la nu màggee ba waaye suñu juróom-benn fukki at waaye lii daal man bi ma duggee si tànt bi dama ne monsieur le maire ah lii daal c'est une première kon yaa sa mbokki daara yi nga xam ne yéen ak ànd ba taxawal bés bu mel nii yàlla na yàlla gën leen jàppale yàlla yàlla gën leen déggale ak monsieur le maire ba li yéeneem ci yéen mu mottali ko lii seen yéene ci moom ngeen mottali ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëf. kàddu yi rafet na am na solo. yal na yàlla fay. ñoo ngi la koy ñaanal yàlla mu may la fekk ak tal te maanaam ngeen sarax ñu ab barab ab barab nag moom bu ngeen ñu ko saraxee monsieur le leen sant bu baax a baax a baax ñun Touba la.